ñu waxati xaalis bu setul bi nga xam ni teg nañ ko loxo foofu ca Gibraltar ak ñoo xamante ni ñu am tur lañu mu tolloon si ñaari ñaari milliards ci foobier yi ñu yor bokk na ci benn sëriñu Mbàkke Mbàkke bu siiw nee na ñu mi ngi tudd Sëriñ Saaliwu Mbàkke ak i tamit ay commerçante kenn ci commerçante yooyu muy benn doomu kilifa diine bu siiw lépp ñu ngi ko ràbbee woon ci benn bijouterie bi nekk foofu ca Touba waaye rek li nga xamante ni moom mooy ca quartier Gibraltar kon sëriñ boobu noonu fa lañ ko tegee loxo ak ay complice am kon takk der yi ñoo jëfe lu ni mel bokk na ci ay soxna yoo xamante ni ay commerçante yu mag lañu ñu toll ci ñeent bokk na ci tamit saag boo xamante ni ñoom ñu ngi ko yoroon mu am ay cinquante cent ak deux cent euros ci ay billets yoo xam ne dañ ko def ci ay paquet lépp rek ñu doon ko dajale doon ko jox chauffeuru sëriñ boobu noonu ngir mu dugal ko ci oto bi daal di koy yóbbu ci beneen diwaan goo xamante ni fan la ñu war a tasee xaalis bi ñoom ñëpp le daal dinañ leen teg loxo jébbal leen procureur de la république démb ci altine bi ci enquête boobule moom sëriñ bi bi ñu ko laajee nee na moom yàgg na ci wàllu phobie yooyu te boole na ci ñi nga xamante ni ay borom tur yu mag lañu te fii ay waxtu wala boog ay fan ñoom ñëpp dinañ leen teg loxo. ci jàngoro bii di coronavirus bi ki nga xam ni xelam dafa màcc ci wàll épidémie maanaam feebar yoo xam ne dafay faral di ñëw docteur Pape Moussa Thior moom tiitaange bi nga xamante ni am nañ ko muy deuxième vague ñu wax ne rek jàngoro bi bi ngi yokku nee na moom jàppul ne feebar bi mu ngi yokk fii ak amuñu fanweer ci ay nit yoo xamante ni am nañ jàngoro bi kon lenn rek loo xamante ni moo war a am mënuñoo fexe ba zéro cas am maanaam feebar bi dootul amati ci réew mi fii tëjuñu suñuy frontière ndaxte frontières yi tijji na muy aéroport beeg port beeg ak suuf si nit ñaa ngi fay jaar. kon forcément dina am ñoo xamante ni dina am jàngoro bi am ñoo xam ne dañuy ñëwee positif am na ñoo xam ni foo négatif la ñuy duggee fii ci biir réew mi te moo tax chaque jour ñuy gis ne jàngoro bi dafay am waaye bu fekkee ne dañu jàpp ne dañu bëgg zéro cas fii ci biir réew mi loolu mënta nekk ndaxte frontières yi dafa tijjeeku tey feebar bi dafa law ci àdduna wërngal këpp moom daal li muy wax loo xam ne mën na dalal xel waaye tamit wóorul mu ne fii amuñu fanweeri cas. mënuñu jàpp ne lii di jàngoro bi mi ngi commencé yokk fii ci biir réew mi